yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te mu tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàng mi ak ñeent yàlla tànn na sool mu nekk buur Israyil nanu bamtu nettali yi weesu benn lan moo daan dal waa Israël saa yuñ toppul yàlla yàlla bàyyi na seeni noon duma leen ñaar lan la waa Israël daan am bu ñu toppee yàlla yàlla daana tànn ay nit ñu màndu niki ay njiit ñu dimbali waa Israyil ngir ñu duma seeni noon ñett lu tax yàlla def Samwil wuutu Eli ci kaw doomi Eli yi ndaxte nit ku màndu te doomu Eli nit ñu bon lañu woon ñeent lu tax waa Israël bëggoon fal ab buur bëggoon nañu am buur niki yeneen réew yi wër juróom ndax yàlla bëggoon na ci loolu déedéet juróom benn lu tax yàlla bëggoon na yilif waa Israël moom ci boppam bëggul woon keneen yilif leen mbind mu sell mi ci benn samwil saar fukk juróom aaya benn ba aaya ñett aaya juróom ñaar ba aaya fukk benn samwil ne sool man la aji sax ji yebal ngir ma fal la ci mbooloom Israyil kon déglul li aji sax ji wax aji sax ji man lépp nee na maa ngi fàttaliku li wa Amalek def waa Israyil bi ñu leen tëroo ci yoon wi ñuy génnee Misra léegi nag demal dal ci kaw waa Amalek fagagal leen ak lépp li ñu moom bul ñeeb lu mukk waaye nga rey góor ak jigéen xale ak liir yëkk ak gàtt giléem ak mbaam sol dàq Amalek dale ca Sawila ba xuru sur wi janook Misra mu jàpp Agag buuru Amalek te mu faagaagal mbooloo mépp rey ko ak jaasi waaye sol ak mbooloo ma déeg agaak ak gàtt ya gën rafet yëkk ya tànnee fi jurga xaaf ya ak lépp li fa baax bëgguñu ko araamal te ñu araamal rek li jara xeeb te yooy kàddug aji sàjji daldi wàcc ci samuel ne ko mettitlu naa li doon fale sol buur ndaxte dëddu na ma te sàmmul samay kàddu bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi nekk ci nettali bi yàlla tànn na sool mu nekk buuru Israël nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla tànnee sool mu nekk buuru Israël gannaaw bi waa Israël waxee ne dañu bëgg fal buur yàlla wax Samuel dina yónni ci moom kenn ci askanu bensamin samwil war na ko diw ngir mu falu buur ca ëllëg sa sool mi bokk ci askanu bensamin te doonoon ko am jëm te taaru ñëw ci samwil moom mi ki dagam dañu doon wër seeni mbaam yu dag bi ne ñu laaj samwil yenent bi fan la mbaam yi nekk sool ñëw ci samwil di ko laaj fan la samwil yonent bi dëkk samwil ne ko man maay yonent bi mu ne sool mu toog ñu bokk lekk ndax dafa leen fekkoon ci am xew mu toogloo sol ci toogukaay bi gënoon a ràññeeku ca ëllëg sa samwil diw boppu sool ak diw oliw mu wax sol ne yàlla fal na ko buuru israyil mu wax ko ne mbaam yi feeñ nañu mu wax ko itam ay yëf yu koy dali buy ñibbi mu wax kone dina gis ay yonent yuy wàcc ab tund di liit tey wax li xewi ci mbirum yàlla te jamono yooyu doon am ab yenent bu mag ak itam ay yenent yu ndaw yu bare xelu borom bi dina wàcc ci sol te dina ànd ak ñoom di wax moom itam li xewi ci mbirum yàlla su ko defee yàlla dina ko jiite lépp li Samuel wax doon dëgg noonu Samuel woo waa Israël ñu daje mu ne lii la leen yàlla wax jële naa leen Misra te musal leen ci yeneen xeet yi fi nekk yépp waaye wàcc ngeen ma te wut beneen buur noonu Samuel wax nit ñi ne yàlla fal na Sool buur Israël nit ñi bokk yuuxu yàlla buur bi gudd fan ñu teg cib diir sol tas xarkati waa Israël ci wet yépp ngir ñu song seeni noon yàlla ànd ak ñoom ñu daan seen noon yépp gannaaw loolu Samuel wax sol ne ko yàlla bëgg na nga daan réewu Amalek ndaxte bi waa Israël génnee Misra tere woon nañu waa Israël jaar seen réew reyal góor ñi ak jigéen ñi ak xale ak seen jur gépp sool ak ay katam rey ñépp ba mu des agag buur bi moom ñu jàpp ko waaye ñu denc jur gi gën a duuf noonu yàlla ne samwil maa ngi rëccu li ma fal sool buur israel ndaxte bañ la maa déggal ca ëllëg sa sool ne samwil def naa li yàlla santaane waaye samwil ne ko xar yeeg nag yi may dégg lu ko waral sool ne ko denc nañu jur gi gën a duuf ngir sarax leen yàlla noonu samwil ne ko ndax yàlla sarax bu ñu lakk moo koy bégal walla nit ñi déggal ko déggal yàlla moo ëpp solo saraxe mu teg ci ne yàlla folli na la ndaxte yaa wàcc kàddug yàlla noonu sool nangu ne bàkkaar na ndaxte deful li ko yàlla sant waaye samwil ne ko rëccu wees na yàlla bind na ko ba noppi bi samwil deme sol jàpp mu bu samwil xotti ko samwil ne ko borom bi xotti na nguuru israel te jox na ko keneen fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax yàlla fal sool buuru israel ndaxte waa Isayir ñoo bëggoon ab buur ñaar lu xew gannaaw bi Samwil diwee sool ngir mu falu buuru Israyil xelum yàlla dafa wàcc ci moom di ko jiite ñett lan moo xew bi waa Israël xeexee ak seeni noon daan nañu leen ñeent lu tax yàlla mere sol bi sool daanee réewu amalek ndaxte sool deful lépp li ko yàlla waxoon yoonam la toppoon bàyyi yoonu yàlla juróom lu tax yàlla bëggoon sool rey waa amelek yépp ak seeni jur gépp bi waa Israël génne woon nañu waa seen réew ndaxte waa amelek doon nañu jaamu yeneeni yàlla ak i xërëm yàlla xamoon na ne waa israyil naroon nañu walbatiku di màggal yàllay waa amelek suñu reyul wa amelek yépp ak jur gépp juróom benn ñu saraxe wala ñu topp waxi yàlla lan la ci yàlla gën a bëgg mbind mu sell mi nee na déggal yàlla mopp solo saraxe juróom ñaar lan mooy atteb sool bi mu deful li ko yàlla sant yàlla foli sol ndax li mu dégg juróom ñett lan lañu loolu di won ci mbirum bàkkaar bàkkaar mooy indi teqaliko ak yàlla yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu feeñe ci nettalib sol yàlla xam na lépp yàlla wax na samwil ne sool dina ñëw te samwil war na ko diw ngir mu doon buur wax na ko itam fan la mbaam yi nekk ak liy dali sool yàlla xamoon na ne sool deful limu ko sant sool reyul buur ba ak jur ga gën a duuf gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla jox na waa Israël ab buur bi ñu ko ko te may na leen ñu daan seeni noon yàlla bëggul bàkkaar yàlla folli na sool ndaxte sool deful li ko yàlla santoon ci mbirum amalek maanaam mu rey nit ñépp ak juru amalek gépp beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla tànne daawuda mu wuutu sool